leen ko waxee saa su ne ñi ngi fii ci euh, terrain cosaan ah gis nga ñi ngi ni ànd ak maire bi mi ngi nii moom it di xuus ci ndox mi ñëw jege ñi nga xamante ni ñooy habitants yi nga xamante ni ñoo dëkk fii ci tere cosaan moom monsieur le maire bi nga xamante ni moo nekk fii ci Pikine Ouest muy loo xamante ni gis ngeen foo xool fu sa bët yam ndox la muy muy muy lu doy waar te aussi di lu metti ndax ndox maa ngi ci biir kër yi ndax ndox mi ak kër yi dañu euh, euh, da dañu sorentewul ndox mi dafa kawe trop trop trop ba ci buntu kër yi ah ndox mi da ciy dugg moom monsieur le maire gis ngeen ko mi ngi nii mi ngi def chemise ak super sang waaye gis ngeen ko mi ngi ci biir ndox mi di xuus ah ñëw ngir wan jagañaale yi wan ni leen li nga xamante ni moo dal seen kaw ni mu leen méttee moom it noonu la ko méttee monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nuyu mbokk internet yi nuy topp ci Sénégal 7. asalaamaaleykum maa ngi nuyu équipe bu Sénégal 7 yëpp di leen eh, ziar. Euh, te di nuyu vraiment équipe bi ngeen àndal yëpp di nuyu tamit population yi ñu fi fekk euh, di bokk ak ñoom vraiment euh, difficulté yi nga xamante ni ñu ngi koy rencontrer en ce moment là. waaw le maire nu ñëw fekk fi chantier yi fekk fi oto yi ñu taxaw fekk fi ay suuf ak lépp muy loo xamante ni jàppoon na ni xëy na liggéey la boo xamante ni doon ngeen wàcc ngir lii bañ am lan moo yéexal liggéey bi ba nga xamante ni inondation bi ñëwaat na ci quartier bi. waaw da dañuy dañuy par euh, vraiment euh, voilà donc interroger l'histoire parce que fii euh, ku ko xam-xam ni euh, bi cité bi nekk avant sax cité bi la ñuy wax c'est un point bas point bas donc bu ko waxee mooy ndox bu jugee ci foo xamante ni moo gën a kawe ci fu gën a suufe la jëm te fii dafa bokk ci Pikine la sax la ñuy wax fi gën a suufee ci Pikine mën nañu wax ni zone bi bokk na ci donc bu fekkee dafa taw Euh, ndox yi nga xamante ni vous pouvez le voir boo xoolee sax descente bi di nga xamante ni euh, ndox yi dina jóge fu sori ñëw ñëw fii fii réceptacle d'eau la surtout l'eau de pluie donc loolu moo waral euh, chaque année dañuy rencontrer difficulté yoo xamante ni vraiment métti na métti na ci ci habitants yi métti na aussi ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy pratiquer sport fii muy terrain bi